Euh, ñen ñi nga xamante ne seen euh, xam-xam màcc na ci nee nañ mm. Sénégal war na dem vers une monnaie unique ñen ñi nee nañ déedéet waruñu si dem mm. mais liñ si mën a jàpp déjà mooy que une monnaie pour que nga am ko une monnaie locale il faut nga am devise boo xamante ne si lay reposé wu ñàkkul ne yow si sept axes prioritaires yi nga xamante ne jot ngeen ko def kenn ngeen ci xalaat déjà lan moo si say position et nan ngay mën a articuler loolu yëpp bu fekkente ne dañ si war a dem vers une monnaie euh, locale ou bien ou pas xam nga dama wax léegi ne ñun la mère des batailles te loolu laa bëgg ñëpp retenir par rapport à ce programme c'est la souveraineté à tout point de vue souveraineté à tout point de vue L'union ñu am côté, dinañ ko qu'on côté, ñu amul dinañ ko téye leneen lu ñu amul tam dinañ ko mbébét pour Donc, donte dañuy jeter les bases pour que les générations futures ñu bu ñu ñëwee nous ñun pour eux. sur la question de la euh, euh, euh, par rapport à la monnaie question bu bëri passion la ñu bëri di ci rawatina bii nga xamante ni dafa am lu bari lum ñuy fàttali mooy moom goo xamante ni xëy na moomoon nañ ñu ko ba daaw euh, yaakaar naa su ma juumul nga gis euh, ñoom Alassane Ouattara ak ñooñu def ci ay jéego daal ne léegi sax dañ koy dañuy changer CFA bi tuddee ko ECO yu mel noonu mais ñun li ñu jàpp mooy li si jiitu mooy nañu wuti économie bu dëgër d'abord économie monnaie c'est l'économie qui fait la monnaie donc nous avons une économie bu forte ñu avons un marché nous donc maa ngi au Sénégal parce que si nous avons un sénégalais yi produire yépp produit bu ñu produire xam ne parce que tey mënoo fi nan nga fi liggéeyee lo xam 18 millions de sénégalais yépp dañ koy soxla donc marché bu tuuti tamit du permettre sénégalais de nga des da fay nekk dans l'industrie mu mën dem à la mu mën dem donc da nga soxla boo gisee Nigéria ak dëkk yooyu lan moo ñu am ay champion c'est parce que aussi dañu am marché bu yaatu donc moo man ñi nga xamante ni yëpp dañuy bëgg koo xam dafay recroqueviller wu sur lui-même teju man duma teju tëju damay ko donc man lima ma moy français Fabi amna lu bari lo xamante ni mën nañ ko ci wax su dañuy am une monnaie boo xamante ni dafay jël en compte nos intérêts ba mu mat sëkk. mais comme bii nga xamante ni am nañ ko pour le moment am une certaine stabilité dama ne nañ ci nañ ko joyanti gën ko baaxal parce que nous sommes en mission ba nga xamante ni loolu nga xamante ni tey ji dafa nekk une forte demande des populations africaines des jeunesses africaines ñu mën ci am monnaie boo xamante dina dëppoo ñun ak sunuy suñuy bëgg-bëgg ci ci ñi nga xamante ni ñoo seq tey jii franc fa mhm. ñu mën a dem ci loo xamante ni dina gën a méngoo ak li ñu bëgg ba pare te dootuñu fàttali moo tax dafa am une dimension symbolique dootuñu fàttali euh, lépp loo xamante ni dafay nuru ne dañ la mës nañ la moom. d'accord voilà loolu mooy euh, sama euh, euh, position. par rapport vous êtes vous êtes dernière question. avant question wu internaute d'accord vous êtes vous êtes 19 candidats mais si 19 candidats yi dafa am ci lu ma ci jaaxal sànq maa ngi wax ne daanaka programme bi dafa xaw a méngoo mais jafe-jafe askan yi nga xam ne bëgg ngeen ko faj. benn kilogramme ben kilowatt d'électricité ñaata la ak kilo ceeb ñaata la kilo euh, litre diwlin ñaata la. ndax xam nga ko barina ci yéen ñoo xamante ni boobu ba tey ñu ngi àddu ci programme te xamuñu kilo ceeb ñaata lay jar.